Touba ca kanam ci ndigalu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci teewaayu Serigne Abibou Mbacké responsable moral Touba ca kanam Serigne Abdoulahan Mbacké Abibou Serigne Fata Gueye président association Touba ca kanam soxna Bintu ke jawriñu soxnay Touba ca kanam soxnay association Touba ca kanam ñoo am mbégte di leen yëgal bés bu mag di bés bu yaatal bi nuy amal samedi fukki fan ak ñaar ci weeru juin 2021 ca saalu unité africaine bu CICES li ko dalee 10 ba 18 programme bi nii lay tëddee 10 heures 12 heures 30 njàngum alxuraan ak xasida 12 heures 30 13 heures 30 exposition Touba ca kanam 13 heures 30 14 heures julli tisbaar 14 heures 15 présentation Touba ca kanam kanam 15h30 17h30 panel animé par docteur Khadim Bamba Diagne kanam un modèle de développement communautaire professeur Moustapha Guirassi comment Touba ca kanam peut-elle participer au développement du Sénégal Sokhna Gueye comment Touba ca kanam peut-elle contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes ñuy sàkku ci mbokku jullit yi ak ci mbooleem mbokku talibé yi ñu teewe ko ku ci bëgg ay leeral mën ngaa woo Mor Sourang ci 77 935 28 28 wala El Ndaw ci 77 520 01 90